mu mel ni loolu doyut boo xoolee suñuy avocat dañ ñu daal di ne ni kilifa biñ koy déglu di ko auditionné ba tard dans la soirée dañu garder menottes yi téye ko comme un criminel loolu day renseigner sur état d'esprit wu nguur gi rek à travers suñu police bi nga xamante ni moom la ñu instrumentaliser pour que ñuy dóor citoyens yi ñuy fexe ba citoyens yi nga xamante ni dañuy jibal beneen kaddu bu bokkut ak kaddu nguur gi ñu xool nu ñu leen nootee mu ngi noonu ca Kaolack ca commissariat bi ñu téye ko fa lu ñu tegul ci yoon dinañ def le point ak suñuy avocat ci waxtu yi wax euh, la suite au-delà de Y'en a marre c'est tous les Sénégalais yi nga xamante ni justice ak liberté d'expression liberté de marche soxlaal na leen ñu ngi exiger libération loolu c'est la première chose waaye léegi lu ciy toftalu bu soobee yàlla ci waxtu yi di ñëw dinañ communiquer. Bawol info point xibaar yu gaaw te